titre nga daal di ñuy euh, dégtal li xët yi xëyee tey. ayca tey na boo klaxonné wu boo deful nii boo fi tasewul nii du ma rëb. ayca kon yaay rëb yu eh, nga yaa ubbi Walf Quotidien maman. Ah yaa ko ubbi kay tuwaarkal bu la kenn changé nag. yarul nii nabu nii la meloon dafa yar woon waaye léegi xale bi dafa doy waar. incha allah ba pare nabu contrôlé tu ma ko mu commencé xattu ngóole mais dafa def. waaw sekk xel bi ñett la nag MNN la man yow ak mami dëgg la wa waaye yow. ba pare mu toog jërëjëf yow bi maa ci gën a yàgg. deuxième deuxième. <laughs> loolu tamit kaala doxalaat. Walf quotidien te kat dictature lay de man lii du ma def kaala tamit Walf moom mii gune gi vrai dictature moom moom dictature rek lay dox. <laughs> moom mooy wax mooy tëj. <laughs> te mës leen ma of nag ngeen xam ne dictature. billahi kenn mi maa newoon nañ la ko jox waaye bàyyi naa. à tout ko ah yóbbu ci pôle judiciaire financier. oh yal na leen yàlla may jàmm ngeen fekkee. amiin ñooñu yàlla bu leen weñ laal. pour judiciaire financier yal na leen yàlla may ngeen liggéey liggéey bu mucc ayib Sénégal <laughs> yàlla bu kenn mën ci yéen dara dara dara dara yal na leen yàlla bàyyi seen sago yàlla buñ leen xonjom yàlla buñ leen ren te mën leen ci yoon dara sax jubal leen rek. profil yi composé boobu pôle. oh le pôle là. wa waa kii euh, journal nu mu tudd tuuti ma ne ko pôle de damaa tiit Walf Quotidien ah. ñëw ci blocage mu ne de la transgambienne fu mu nekk nii nag wax dëgg yàlla nañu wax ci sud du Sénégal bi. Mm. ñuy commencé ak fii Ngoné Saliou Gambie yaay borom Sénégal yaay borom dama lijjanti di dox nag ah, waaw na la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaw na ma yónnee na la yónnee nga dem régler lii mhm. boo demee di ko réglé te boo ne boo demee bul xeex ak kenn <laughs> boo demee bul xuloo damal média kuy méj kuy def médiation doo xuloo damay dem commencé médiation ñu am lu wax ma pes après loolu lay bañ bàyyi ko bàyyi ko ñu ñu El Malick dem bàyyi ko bàyyi ko amul problème bàyyi El dem amul benn problème éditorial ba yee waaw waaw journaliste yi na saf de parce que Serigne Bamba bu leen bu baax bu baax mooy wax ñii naan ndax kii mami laa kii du mami di ngeen xam après enquête ñëw ci difficulté à Air Sénégal mu ne le pire évité nañ ko de justesse bon li tax yéenekaay bi wax loolu mu nekk ñeenti avion ñoom ñoo ñoom ñoo euh, ils ont failli être cloués au sol par l'un des bailleurs mu ne avec un déficit de plus de cent milliards de francs CFA Air Sénégal fu mu nekk nii wax dëgg yàlla perfusion rek lay dunde maman mm-hmm. yaa ngi dégg benn responsable secteur bi nag nee na war nañu aussi ubbi rapidement compagnie euh, yow Cost Sénégal Express pour vol yi nga xamante ne moom mooy les vols de l'intérieur et ça c'est une très belle suggestion enquête daal di ñëw ci euh, Sud Quotidien plutôt ñëw ci dossier CEDEAO mu ne 50 ans après mu ne li c'est une organisation en question CEDEAO daal len laa ci gis. Hmm. tas waaw ah, te bu nu ko dee tas nañ ko tas tasaax ok bu nu ko tasee tasaax ñu dem dëkk bu nekk ñu xool xale yi te gën a xarañ ñu taba tabaxat beneen série yow bu bees jëlay Pape Moussa xam nga si mën nga dem série yow ma trouve jël ay Guy Marius te gii nag balaa mooy dem dee leen ko jox bisaab bu woyof billaahi ba leen ko jox bisaab bu bu weex bi bisaab waaw kay surtout ko boobu yow isam bu weex si bi léeg bi xaw a da xaw a dëgër tuuti dinañ ko jox ko ko ananas yooyu du jar yu oyof yooyu. <laughs> jii dafa naqari dem na de waaye bind na de. waaye la mu fa def de. fu mu dem moom wala boobu. waaw kàll kay xanaa mooy càmmiñu ngóonu saaliw rek. <laughs> man su ma gis nit ñu bare ni histoire. dafa ma dafa am jikko yu bari ma gis ci moom yi nekk ci man. Mm-hmm. benn ngeen. Mm-hmm. Mm-hmm. man je l'adore gii mooy góor yaay jigéen na ko yàlla jàppale. waaw amiin yaa rabbi kon jot na nga dem assemblée. kan kii. bii nii kii. non bi bii moom. 15e législature bu fekkee bii moom elle est bii moom. jaxut a dem moom non bii ñoom war mën a nekk. non bii non non nag la bëgg dem. waaw bii ñoom. Ah. man sama rêve yëpp nekk bi of nag di ubbi dossier ñi di xool. ah waaw waaw la. ah, ah. ci wàllum ah, communication ci pôle bu bees bi. Hmm. voilà je pense que xool moo gën parce que. soo nekkee off nag da ngay am obligation de réserve. man xoola yoo xam ne du la may ci yenn dossiers yi nga mun ci communiqué à force yooyu yi ngay dem di toog naan lii ak mais dangay nekkee ci pàcc boo xamante ni. communication bu ñu yoree dossier ba liggéey bi ci war jeex. nga am nag. possibilité wàllum siiwalaate waaw nga bokk ci ñi ko njëkk a jot maanaam yemu rek ci siiwal de ah. parce que bu dee ñëpp jot nañ ci amatul solo mm-hmm. mais yow nga bokk ci ñi nga xam bu ñu ko càmbaree ba mu génn balaa kenn cee jot ci say loxo lay njëkk a tàbbi mm. yaa ci njëkk wax banaa keneen mais parce que sax ah, dafa am solo mu am communication parce que gis nga ñam naa la épingle ñoom dañuy eh. dañuy détourner communiquer comme dire eh, eh. que waaye ko commencé nañ recruter ah, waaye de yéen yéen lan moo tax yéen amu leen dégg dégg dafa baax dee leen yor ay noppi garmi bu nit ñi wax dee koy dégg Pape mii problème mu poste ngoone intéressé moom bëgg na fa ngoone am poste de mais nee na ko waaw dégg chaque ngoon mu sa dog-dog sa limite gi lay bañ chaque ngoon loolu mooy lu ñu la jox jox poste deel ñëw jox mu ngi waxaale soxla ah Pape Ousmane Cissé lan moo tax booy wax nit ñi duñ la dégg man mi lu tax nga may déggee nii fii mais Boubacar Ba forum du justiciable il était là-bas non. waaw moo nekkoon vice kii vice président bi yaakaar naa moom moo topp ci ba tey mu ngi. il est toujours naa ci vraiment d' accord. naa ci yàgg na. c'est une demande d' accord ngeen wala déet. parce que diw ngóone ak euh, sëñ Bassirou Gueye. non non ko man daal la am de. mënuñ ko mënuñ ko balee noonu de. waaw kenn ko balee ba yàgg yàgg day dem. loolu jeex amul. waaw daa war a dem sax. <laughs> bien sûr daa a démissionné. na <laughs> eh, eh, ko ci jaay foncière. na fi moom Keita jeexul woon. jeexul woon jeexul jurisprudence nga fi ko. ma ñëw. ayca wéyal le quotidien ñëw ci spéculation foncière mu ne. Hmm. Euh, ah diis na de. kii. Euh, waaw kay jëm ki kay utal. ki fi nekkoon kii première dame soxnaay ki fi nekkoon président de la république. jabar Macky Sall la. waa jabaru ma Sall. Marème Faye Sall. waaw moom waa kay moom Marème Faye Sall. Mhm. wëjur bu jigéen. yaayam waa waaw. kii sa ma moom lañ koo convoqué gendarmerie. lu tax ah nee nañ daal dinañ elle sera entendue moom ak doomam Adama fay ci ay mbiri mbiri suuf des problème de terre. Mhm. waaw loolu daal la yéen a kaay bi wax nee na daal Marème. yaay Mariam moom lañu convoqué ci gendarmerie ba tey ak ak ki nga xamante ne moom mooy Adama Faye Adama demoon na demaan waaw waaw mbiri suuf te tey muy ànd ak yaayam waaw fayoon na tam waaw mu ngi noonu yee plainte annoncée contre Madiambal maa ngi ciy dikk Sonko dafa relancer son gatsa gatsa <laughs> yéen kaay bi moo gën a neex ci àdduna bi Le Quotidien dafa neex journal bu neex gi nii les échos ñëw ci journée sans presse pour faire face au pouvoir waaw les journalistes lancent micro revue de presse télévision tout il a été réseau yi ñu évoqué nag lenn la blocage compte bancaire ya ca bokk lu tax ngeen di tëj suñuy compte rupture unilatérale na dakk na jeex na tolloo illégal des contrats publicitaires loolu kañ la yëguma ko woon convention yi laa yëgoon beneen bi mooy le gel des paiements moom la moom la moom la ah ak gel des paiements lii moo tax Pape Boussa suba journaliste yi dañuy def journée sans presse yaa ngi dégg. Mhm. man du ma ñëw. waaw. journée sans presse. du ma ñëw dañ la koy teqale. ñaaw. waaw loolu teq. ah ñëw ñëw ñëw seet. waaw eh, waaw pour xaalis bi koppar gi may jot. garaaw damay ñëw ooy far. tey kat yow doon bàyyi rek barki sëñ bi yow man man man man sax man man est-ce que journaliste man yow man mii yow Papa Ousmane man est-ce que dama taaxuraan kat. <laughs> man. mais mais mais mais man yooyu daf may jaaxal quoi. kon euh, de la presse bi ni mu diffusé journaliste sax da nga ciy nekk ba pare yow taxaw na nee na mais képp kuy collecté traité diffusé. bul développé bul développé oh may leen ma loolu bul développé sujet waxtaan yi ci la bokk ci kanam voilà nañ ko bàyyi ba ci kanam jël jël kii jël da nga jël avance trop kon kon bàyyi naa mu seet Pastef nag confronté à ses propres démons Abass Fall mu ne li may regretté mooy nit ñi di refuser cotiser au prétexte que dañoo nekk au pouvoir Euh, Ngagne Demba Touré nee na arrêté de nous parler d' appel à candidature mu ne il faut que militant passif yi ñu def leen au cœur de l' appareil de l' ba pare bu ñu ko defee ba pare ñu assumer loolu lay dëgg yaa ngi dégg ñëwal ginnaaw point actu ñëw ci répression des crimes et délits écono économique ou financier mu ne poul judiciaire ak financier bi bii la de bii lañ la doon wax sànq waaw ah, mu ne plus redoutable que la CREI et l'OFNAC sax nañ sàpp de Abdou Diouf moo créé CREI Macky Sall ressuscité ko mise en route bi mag Macky créé PJF mu ne avantion son départ Diomaye nag mettre ko en œuvre yaa ngi dégg moom PJF bi dafay assurer mieux que la yi principe directeur d'un procès Boubacar Ba moo wax loolu mu ne pour Boubacar Ba nag du FDJ en cas de condamnation mu ne il y a possibilité de saisir la chambre d'appel financière yaa ngi dégg mama PJF bi dafa garantir aussi que la CREI les droits de défense selon Boubacar Ba ak yeneen ni détails yoo xam ne Boubacar daal wax na ca point actu moom la jagleel xëtu yéene kaayam observateur ñëw ci justice euh, la gêne magistrale mu ne mesure yi nga xamante ne conseil supérieur de la magistrature jël na ko la rupture également piégée mu ne le changement de ton inquiétant de l'UMS sur la présence du chef de l'État foofee ca conseil supérieur de la magistrature Air Sénégal wax naa leen ca sànq les pistes de l'envol yéeni kaay ba ñëw na ca édito baa ngi média sénégalais la mort programmée ndax suba du ngeen xëy def indi yéeni kaay te ma wax rek del leen ma wax rek ah Yankhoba yow tamit bu nu waxtaan ba nga yaakaar ne ay dagg salaire yooyu xaj na ci génn ci yooyu nga nekk man sama xaalis kenn du ko dagg. xaj fa am Yankhoba est en train d'écrire. merci beaucoup allez-y da ngay continuer wala. dinañ foo Yankhoba dinaa xëy ci bopp lii mu ñëw ci UMS bi mu ne et des Sceaux et non aux autres l'UMS ne s'y oppose pas. sous réserve de la volonté du président de la République de quitter le Conseil. Il convient de laisser à la euh, judicature ce qui lui appartient. xoolal bi ñoom ñëpp ko jëndee ko daaj ci lii de. man seeg xoolal sama problème mooy lii mooy xaw a dawloo sama yaram tuuti susceptibilité. mais bon après dinaa la expliquer lan moo tax quand même maak ñoom ànd. dinaa la ko expliquer. d'accord après tout à l'heure source a ñëw ci à l'origine de la crainte concernant l'entrée de personnes extérieures au conseil supérieur euh, de la magistrature mu ne les universitaires et trois points de suspension beneen bi ci suuf affectation bu Maham Diallo bi Mamadou Seck mi ak Abdou Karim Diop mi fan ca Tambacounda la nouvelle ville <laughs> l'UMS dafa déplorer une purge ba xam ngeen ne man su ma jógee fii Pape Pape Moussa hmm. Tamba laa jëm walaay weekend man bii nii. fi bàyyi ngoone. waaw boo am telling you. Ngoone Saliou boo leen dem Tambacounda yóbbaale ma. <laughs> naa leen boole ak madame Sagna. benn bés dama fi demoon Tambacounda yaa ngi xatali ko. benn bés dama fi demoon waaye man maa ngi nii di wax de damay dem Tamba de. madame Sagna ca Tamba ñu ngi lay nuyu. Malayka nuyu ko neex a ngi noonu. fu ngeen ah mooy mooy ruq bañ nekkoon. waaw kay après ñu dem ci alkaar ba. Ah, ah. maa ngi lay wax nag ruq bu neex kay ak Ziguinchor. ak Ziguinchor. c'est le plus dans ce pays. Tamba dafa neex de. musuma dem Kédougou. yi doo dem Kédougou ba xooli chute ya. musuma dem. dem si Gicoor chute doy chute kii ku yàgg ak yaras la. oh. Tambacounda. mami. yaay ruut la. waaye ñooy sansaan yi. Eh. def ni taw. <laughs> mami doxale ba ci kanam. ni ma tegal nii neex na de. <laughs> Ah. bu ñuy dem weekend ca yoon ma tegal ma bi <laughs> Tambacounda rek. Tamba moo xew moom day dem sax. moo xew waan Dakar moom lu tax ngeen yaakaar ne yéen moom dëkk bi. maa xam ak trop. ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal buxal buxal buxal ginnaaw suuf ah on y va on y va. ayca ñu dem ci yéenekaay bi ci topp euh, l'exclusif ñëw ci reddition des comptes affectation de magistrats mu ne les pires de la l'APR risque de tension sociale mu ne la justice comme arme de distraction et de destruction massive contre l'opposition pour l'intimider virgule la museler et <laughs> la neutraliser Oh, maman man nga bëgg sa see ay man. ñëpp la ah, ça c'est sûr. ñëpp la bëgg mën a saa de tension sociale. trois points de suspension. la justice comme de distraction et de destruction massive. contre l'opposition pour l'intimider virgule. mu ne la museler et la neutraliser. nga fàttali 14 18 ca guerre ba. oui analyse du discours tenant ak ci pouvoir bi il y a mois le premier ministre a les sénégalais qui ont choisi la démocratie ak yeneen yeneen topp ma ci biir yenn kaay bii di l'exclusive indépendance de la justice nag Birahim Seck bu forum civil dafa recadrer Ousmane Chimère Diouf bu union euh, des magistrats du Sénégal UMS crise de la presse les piquets de l'antidote de l'administrateur libération mu tout sur le dossier fiscal mettant en cause le développeur du champ de Sangomar xam nga bu ngeen defee journée sans presse yii da ngeen ñu koy xaj te wut saa mu ngi ci dossier yi neex libération moo ciy génnee ay mbóot yu di jaay di nga di maam yi mbóot xam nga mbóot yooyu nga xamante ne dañuy naaw les cafards voilà euh, Pape Moussa loolu saa si di les cafards voilà en tout cas a li nga bëgg a wax mm. l'essentiel c'est de comprendre. c'est ça. yow naaw. mootu mag dañuy naaw mootu mhm. nawet. dañuy naaw ne un redressement initial de cent dix six cent quarante et un de francs <laughs> CFA. Présumée irrégularité si impôt sur les sociétés, la retenue à la source sur les revenus de valeur mobilière, la TVA, la TVA sur la valeur ajoutée pour compte, l'enquête accablante du fisc, de la première notification du redressement, mu ne la confirmation jusqu'à l'arbitrage moo ne Saliou mm. du DGID puis de l'ATD et les dates du dossier lépp a nga ca biir beneen ba mooy lu une plainte déposée contre Madiambal tey la ci altine gi <laughs> <laughs> kon nag tey nan doon waxee àllarbay juumaay bu leen neex ngeen def altine yi Madiambal c'est tout <laughs> plainte ba dina dugg ne kii nag nee na ko bu plainte duggee bu plainte pourtant am na altine sax moom ci lay génnee kii bi moom mi ni les lundis de les xam nga nag luy sama affaire luy sama problème ci moom moom mi hmm. daraam damaa saf 24 heures mu ne plainte du pool d'avocat de Ousmane Sonko ce lundi au parquet de xam nga ne liñ la def ci yéene kaay bi rek moo tax may wax say wax de mais man say wax moom xam nga ne ma dama cee sawar. bi sax dem nañu. waaw ma jàmbal sur une partie glissante yéene kaay ba nee ma ngay tarxis de <laughs> partie glissante moom boo ko bëggee xam day mel ni lii rek sunu sunu lii nii sunu lii xam nga lii partie glissante. ma téemaa yëg glissé ngeen xool. waaw barki sëriñ ba boo yëgoon nuy ngay def <laughs> maman ne nuy kii ma yëg boroxi xam la poussée su ne pourrait pas tomber barki sëriñ ba ah édito en euh, commun baa ngi nii wax nañ ca turpitude yu Ndeye Binta Diong à lire également et puis comité international olympique Mamadou Diagne Ndiaye champion de l'ordre olympique en argent le journal nous en parle tribune mu ne étant dans le champ de tir de Sonko Madiambal day répliquer nee na ko bu soobee yàlla bu plainte demee plainte dugg na neex rek waaw aller retour rek lay gis c'est tout dafa mu nekk nii danoo defaat ay juges ak ay magistrats yu bees yu bees xale bu plainte dem plainte di dugg ce sera plainte contre plainte une très mauvaise idée Alioune Tine nee na c'est une très mauvaise idée ah bon beneen bi mooy il nous faut sortir de ce cercle par la politique di dialogue mhm. cercle vicieux daa am ci réew mi ah, yëguma ko woon a ah. ah, yëguma ko woon daa am cercle vicieux daf fi am je n'étais pas au courant conseil supérieur de la magistrature chamboulement aux allures d'une revanche ah bon loolu itam ci dëkk bi la xewee mhm. yëguma ko woon <laughs> lu bëri nag kaay ma wax la yéen kaay tribune moo ma koy xamal billahi yëgu ko woon yëgu woon ne cercle vicieux am ci réew mi. ñoom mën kay. ah mi ngi nii de cercle vicieux fan laa mën a ci bëgg yàlla xam nga bët yi mais man dama ko yëgu chamboulement aux allures d'une devache boobu itam yëgu ma ko woon daa ngi dégg yaa ko yëg barki sëriñ am naa li ma jógee ci week-end bi la yor yor mu ne gestion nébuleuse calamiteuse de Pape Modou Fall la direction de l'emploi transformé en structure de recasement de sa clientèle politique maanaam direction emploi bi daal lañ jël daal def ko daal def ko daal bërëbu kii daal xool mama musóor ba neex ma dugal ngoone saaliw greffage ba saf ba ma dugal xool ma ma dugal xool Pape Moussa yii kii siriste la day lëx mbët xaaral ba génne <laughs> Pape boo xam nga fan yi comme dafay jublu ci ngénte mu ko joxee xaalis ma dugal <laughs> mu ne personnel pléthorique plus de huit cent recrues déjà am na ca beneen ba mooy ay agents payés à rien faire fay leen ci liggéeyu leen tous ñebbe muy but buti beneen bi mooy ay million offerts à des artistes chanteurs ah bon comédiens yokk ko ci mu ne des communicateurs traditionnels ñëpp a nga ca biir. xam de waaye foofoo neex kay. convention national état employeur mu ne gouffre financier la volet pavage du programme euh, xëyu ndaw ñi mu ne ay lutteurs. ñoom la ñuy jël jox leen ay quota ay quota de recrutement ay lutteurs ay mbër. Mm. Pape Modou Fall le 7 juillet 2022 Ousmane Sonko mu ne est anti-républicain mu ne il est dangereux pour la paix la cohésion sociale et la stabilité du pays kan la wax Ousmane Sonko. Ousmane Sonko la waxal nii nee mu ne moo dangereux. waaw waaw dangereux na nag booy xool. Mm. waaw baaxul ci benn luubalkat de Ousmane moo am fit kañ. Mm. bi góor ñëpp wéeree seen godaas da koo takk ba bu dëgër danger bi foofu la ne danger tax mu daan ñu gunóor gi nekkoon danger gi mu danger anti républicain mën naa nekk tamit loolu tamit mën naa nekk de daay paam hmm, mu ne dafay daal danger pour la paix maanaam jàmm gi ci réew mi daal da koy jaxase da koy lëg mu war na dëgg de ah. war na dëgg de war na dëgg de ndax xam nga balaa ngaa am jàmm dëgg day fekk yow boo tëddee nga mën a nelaw ci ginnaaw mën nag bu fekkee da nga nekk nag ab ab chaque moom <laughs> sa jàmm moom day jeex ci réew mi mm-hmm. Mm-hmm. lu leer mm-hmm. cohésion sociale stabilité du pays stabilité stabilité. la stabilité euh, dama stabilité mooy lan stabilité mooy lan. Ah, stabilité du pays xel bu dal ah dal. ah moom tamit dafay def day day tere di dëkk bi am dal. dëgg la kay ndax bu dal amoon kay suba journée sans presse du <laughs> en tout cas journée sans presse bi touché na la. tuuti na ko dee. Ah. <laughs> am na suuna sans peur am suuna noppalik. dafa rax noppal. te wuyu ma noppalu rek moom <laughs> beneen kër mais fii ku xëy si wul. yaa ngi man la wax ne ma ku xëy si wul naa teel a ñëw fi taxaw. maay di pointé yaay pointé ku tardé sax waxama xëy si tardé. dagg sa salaire. Mm-hmm. eggali ku ñëw dañoo may xëy ëpp na. kooku da ngay wax ak ku xëy suur man moom damay xëy. direct news damay liggéey fii laay toog bu journaux amul ma créé samay journaux bopp. Mm-hmm. direct news mu ne sur X man ay dagg salaire du ma ko foowee sur X X Twitter et Facebook. Mm-hmm. mu ne les voix discordantes face à Sonko kan kan la kii kan la Adama Gaye mu ne ak kan Mamadou Ibra Kane mu ne ak kan. waaye kii du Thierno Diop. grand Thierno nekk nii. kii du sunu Thierno mi moo ma de. Thierno sunu Thierno bii ci anniversaire Ousmane Sonko bi. paase lekk na ci garab dagal naa ko ci garab Thierno mi ko anniversaire Ousmane Sonko xam nga gars yi dañoo lekk na ci gato bi. nee naa ko anniversaire Ousmane Sonko ñaanal ko mu ñaan sa kanam. fekke nga ko yow. yow fekke naan na jus. lekk na ci croissant bi. ma ne ko ci jambon bi. Mm. bañ dajee mais bu dafa nekk ko ci kaas bi. surtout mm. moom ñaar yoon la ci lekk. surtout jambon fromage gruyère bi tam lekk na ci. Ah. te pourtant yëgal naa ko nag soo koy anniversaire. soo koy anniversaire. Ah. mais yëpp mu ne c'est le même. Thierno yow mu ci loolu nu mu wax. histoire secrète ci même jour bi. waaw yóbbu na gâteau yi ba ci plateau yi man ak moom. nga lekk muy mos di ñaanal Ousmane Sonko. ah kon ñaan bu dee daal moom Thierno ah. ñaan ba lay dal. te teewul bi mu paree li mu war a wax ci moom mu xalaat ko wax na ko. waaye léegi kon ba mais waaye léegi. waaye nañu rocc Thierno fii dañ ko rocc bu mu laalee ci gâteau ba Thierno ci la kii non parce que loolu problème de crédibilité dañuy am. yow yow yow yaa ngi dégg pénc. waaw dafa mos a gis ma saaga ko. saaga kat Thierno Diop. déedéet mos man maa ngi leen di seetaan. saaga mm-hmm. non. moom dafa dem ci plateau ne man dama ko saaga quoi. non non nekkul ah saaga xam naa dafa jub sa jaawale. ah jaawale ko kay mu ngi koy. dafa jub nee na bi complot la contre moom mënoon na toog fii nii wax ko sax. mu ne ban plateau mooy contre contre. boobu Pape loolu garaawul ah la. <laughs> Ah. mag lu mu def ko ko. mag ah, la. ko ko baal waaye nag déedéet déedéet déedéet soo salaati loolu baaxul loolu bu def loolu baaxul cër la. dafa jóg loolu baaxul nit bu la deful dara bu ko jógee moo la def. kii saagaw ko da bay nga naan plateau dañ la coupe. te yow fii la ñuy lekk ndoo suñu dibi ñoo lekk ndoo kon baal suñu yëpp baal suñu yëpp <laughs> Raba Seck Yoro Dia man sama problème li ma yàq dëgg ma yàq ba li nga nekk ko waaye yow ay nit yow ñu ko jàpp ñooñu la yàqoon ba pare lu mu toog fi teg lekk yow kenn yow yow di lekk te noonu la amee wërsëgu lekk booy jeeg muy ñëw. ñooñu demal. Thierno wax ne da koo saal. fi kenn incité wu la. lu incité wu baal ko nag mami baal ko baal ko. baal ko soleil mu discours réseaux sociaux diaspora financement les clés du succès électoral de Pastef xam nga loolu lan la dix ans d'une longue marche vers le sommet neel un. Sonko un accélérateur de changement voilà la bonne définition ah Sonko il est dangereux non non non non le soleil nee na c'est un accélérateur de changement. yaa ngi dégg mu ne adhésion de la jeunesse c'est un désir d'avenir beneen bi mooy ni Camara sémiologue mu ne le discours de Sonko se détache de la langue de bois politique oui oui oui oui oui oui voilà donc la bonne définition xam nga ne kii kii boo ko xoolee ak reetaanam bi nga xam ne kii il est innocent. <laughs> moomin la moomin. waaw ku dangereux dina dina dina dina. ah kii boo xoolee ni mu wéngalee koppatee nga war a xam ne kii na wax dëgg yàlla. beneen ba ca topp xoolal balaa la sol jàmm la taxawee. jàmm la taxawee kii kii koo xoolee xam ne il est innocent. ak ah, Sonko ak ah. yow doo defee dara nag wax dëgg yàlla lii lañ lay waxal rek doo defee dara. Mm. barki Serigne Bamba ñëwal bés bi le jour Sonko contre Madiambal mortal combat oui à la présence euh, du président ci conseil supérieur de la magistrature encore ce sujet l'UMS libéré na Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu ñëw ci sport bi tëj ak foofu record ñëw ci euh, première ligue saison 2024 Jackson Jackson moo ciy kan moo ci kan moo ciy Jackson fii dimbal leen ma damaa gëj a seetaan. à ta gauche. kii mooy Jackson. Mhm. nii la moom la. moom la mhm. kii nag mooy kii kii Ilimane. Ndiaye Ilimane kii. Ismaïla Sarr Ismaïla kii nag. Pape Matar Pape Matar Sarr. Tubaarkàlla mu ne ISO l'envol de l'Eagle attendu Gana et Ilimane pour guider les toufies. Mhm. en tête de gondole Pape Matar patron du milieu des purs journal bi dafa sampum laaj. beneen laaj ba ca des mooy ajaratuma bi saam dina xëy suba du xëy suba. <laughs> dina xëyam du xëy di nga <laughs> bu grève dinañ ko fay duñ ko fay. lu ci mënti am ngoone day pointé foo grève boo grève dañ koy nangul waaye jàppal na jour boobu fay dañ ko dagg. da ngay xëy wala doo xëy bu baax. <laughs> merci beaucoup mami ci li xët yi.